scientifique science laa la mm-hmm. du caaxaan. Mm-hmm. parce que nii nii nii les gens am na ñu commencé effrité parce que mm-hmm. gis nañ loo xamante ne d' ci am na ñoo xamante ne bëgguñu mu def yenn acte appel à candidature defuñu ko gedd nañ. am na ci ñoo xamante def nañ reniement plusieurs fois gedd nañ bëri ci. mais ne sont pas ne sont les électeurs les électeurs. ne sont des militants de Pastef ou de la coalition les Sénégalais j'ai loolu tax ma ne la Sénégalais yu bari ge wet non kon yow ji la xew de nee naan tey jël naa ñetti oto. <laughs> mais man li ma jaaxal la personne de Adama Fall état bu toll ni euh, état Sénégal ñu war a am ñit yu war a xalaat ni non Adama dañ koy topp. waaw parce que parce que on a on a on a on a on a on a on arrestation non kii soxlaam mooy askan bi keneen ki soxlaam mooy fayantu faire taire les gens. mais kii mooy kii kii mooy kii ah. bokkuñu. Basirou mooy Sonko Sonko mooy jàmbaar bàyyi ñu moo tax ma tuddee leen le couple présidentiel mais divorce léegi moom su ko Basirou Diomaye dàqul moom il va lâcher Basirou Diomaye. ah bon deux ans d'ici un deux ans. vaaraam na de Adama. <laughs> est que du ma ñëwaat un laaj la ci Aïssatou Diop Fall bon yaa ngi toog. ci li ngay wax dafa xaw a ak moom li mu wax nee na kii dafa baax dafa gën euh, tàgg na ko. non non yaa ngi woon ci xaw woon ci plateau bi. Aïssatou Diop Fall di wax loolu mais émotion bi Aïssatou Diop Fall doon dégage ci ay am nga si gis Aïssatou a des mhm. na ko plusieurs mhm. prison plusieurs fois plusieurs fois. Mhm. Aïssatou ba muy toog di ma wax ne Bassirou Diomaye mooy nekk président de la République boobu xaaju gu ñuy wax ay mbirum élection. dafa am cofeel ci moom. Assane Diop Fall. waaw ma fa la tegoon loolu moom. sama yaay sama yaay la maa ngi <laughs> ngi koy ziar mi ngi màkk. Eh, na ah, ma jéggal nag dama feebar waa ji ñëw teg ma ci plateau bi. Eh, non doomam la loolu du dara. wax la rek na ko sénégalais yi moytu. Eh. na ko sénégalais yi moytu Bassirou Diomaye ko sénégalais yi moytu. ci naka. Aïssatou mii. Mm-hmm. na ko ko yàlla may moom dong la ko may. Mm-hmm. ay Aïssatou moo jël Bassirou Diomaye uuf fellax Ousmane Sonko. Aïssatou Diop Fall waaw ci naka par exemple. de moom daa ko roloog Ousmane Sonko. Mhm. te saa yoo waxee ne Bassirou Diomaye mu ne Sonkoy Diomaye mu ne la mukk te li mu wax muy dëgg. ah dafa dafa jege kii kee jege wu ko kii dafa am sensu kotuwaaye euh, ko wala sinon gis ko gisaat ko kee amul ji sensu jege ko peut-être. loolu la billaahi wallaahi taalaa Ousmane Sonko du falu Sénégal. mais c'est pas c'est pas nekkul lu ni nga waxee. déedéet mbir mi waaw. déedéet. lu tax nga ne du falu. <laughs> su doon falu 2024 lay falu. waaw mais mën na falu deux mille deux mille deux mille vingt neuf déggoo li ma la mm. xaw ma. man daal li ma jàpp mooy. Ah. c'est pas ça l'objet du débat mais tout ce que je sais. Mm-hmm. mooy je je te dis que lii su amee du ma bett. Mm-hmm. Guy dem du ma bett. Mm-hmm. Ousmane Sonko ñu tàggale ko du ma bet parce que man loolu lay xaar. loolu laay xaar su loolu amul du ñu def plus de trois ans à la tête de ce pays. d' ah accord oui. Euh, jàpp ngeen Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye seen ànd bi euh, du dem ba mandat bi jeex. suñu tàkkalikuwul. Mhm. ils feront pas plus de trois ans à la tête de ce pays. foog ñu tàkkalikoo daal pour waa ji mën a liggéey normal. pour mu waa ji mën a liggéey normal. mais taxul ko day am ay conséquences il a non. conséquences Ousmane Sonko yi. li ñu mel ci moom projet bi Ousmane Sonko sénégalais yi mel lu ñu tara ci moo moo joxoon sénégalais euh, moo joxoon jomaay jomaay gars yi fële fële mais loolu c'est des faits en fait Adama loolu bu ko bu ko weddee en dafa am ay kàddu yu mu yëkkati. sénégalais yi gëm kàddu yooyu ba mu ñëwee falu teggi kàddu yooyu yëpp teg fee. Mhm. sénégalais yi gis leneen moo fi ne woon di 10 pour la ñu am ci pétrole bi wëlbatiku ne 10 pour cent baax na wala moo fi newoon appel à candidature teggi ko walla moo fi waxoon lu baree baree baree bare teggi ko sénégalais yi nag ci sa kàddu lañ lay jàppare rek wala ñu bàyyi la ko sëñ bi te la la chance que Bassirou a Bassirou benn baar rek nga koy def mooy attaque bi attaqué woon Mary Teuw mm-hmm. su weesoo loolu loo koy waxal mm-hmm. lan nga koy waxal loo koy waxal